liberté Macky Sall ñu ngi wax bàyyi suñu jigéen bàyyi suñu sœur Nady Dia bàyyi Nady Dia mu deew ci njabootam yaa ngi noonu bokk sa madame Faye Sall sa fekk bàyyi mag ba かっこいい Pakistan!